condition critères yooyu ñu teg Pastef lan la ci def. peut-être euh, mën nañu leen non boo waxee peut-être c'est-à-dire que c'est une possibilité. non c'est une Wóoru. possibilité. waaw man dama la laaj dama ne la lan lan la ci Pastef def. le caractère de l'État. waaw euh, les institutions de la République. ma wax la benn affaire ma wax la euh, benn affaire la souveraineté nationale je vois pas peut-être. Ma, euh, la question des institutions et l'ordre public. ma wax la benn affaire Pastef mooy l'un des rares partis. boo xamante ni chaque année day yóbbu ses états financiers au ministère de l'intérieur et pourtant parti bu ko deful dañ laa war a dissoudre PASTEF mooy l'un des rares partis boo xamante ni son financement est transparent PASTEF mooy un des rares partis boo xamante ne moo am la haute autorité de régulation maanaam du ñu ñëw ne diw yaay tànn Ousmane Sonko il était seul candidat bu mu ñëwee haute autorité dañu leen donte moom mooy le seul candidat mais day dem élection ñu investir ko à l'unanimité le PV haute autorité bi moo jël décision arrêter une un modèle de PV haute autorité bi ñu tijjil ko boîte mail boo xamante ni kenn mënu ko en réalité donc kenn mënu fa accéder pour bañ li xewoon seree républicain en France am pour montrer que ni su fekkoon ne ñëpp nit ñi ñëw nañ ni Ousmane Sonko du nekk candidat bu boobaa le parti. du ci d' sa cest li mën a bëgg a wax foofu noonu. non may mun a il faut nga bàyyi ma ma yeggale nag. waaw mais il nga bàyyi ma yeggale. cest à li ma la bëgg a wax foofu noonu mooy. cest à yow critères yooyu nga teg lépp amul benn boo xamante ni nii Pastef manqué na ko. wala matale wu ko léegi nag parti boo xam ne yaa ngi matal say àq ak yelleef taxaw taxawaay bi nga taxaw dem nga ba ne ay universitaire kaay leen jàppale ñu dañoo bëgg ngeen aider ñu par des arbitrages démocratiques de euh, ñooñu s'il ne mérite pas un excès d'honneur il ne mérite pas tant de méchanceté